moom moo yore kàddu gi sëriñ Abdou Karim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil alamin bokki jullit yi ñun dey sunu xel dal na sunu xel dal na bu baax ndax li nu fi gis dafa wane ne ka dem sunu boroom ànd na ak moom ma ne doomu aadama réewoo ko pexe ngay dund ci kaw suuf di defi pexe ba dem sunu boroom di la terale lu mel nii ndax fa mu jëm suñu boroom dafa def li ñu tuddee yemale waaye li tax ëppalante di fa am nag mooy taxawaay ki dem Serigne Saliou Touré fii ma taxaw tey képp koo xam ne doomu soxna nga yow boo sañoon tey yàlla melal la ni mu mel ndax taxawaayam bu rafet lépp lu ñu soxla ci doomu soxna maanaam lu ñuy soxla ci doomu soxna rek ci Thiès gii Serigne Saliou Touré loolu yàlla defal na ko ko amul benn ku fi nekk ngay nekk ci beneen tariqa bu tabrul tariqatul muridiya parce que tariqatul muridiya tariqa la boo xam ne amul benn doomu aadama bu ci si Ahmadou Bamba boolewul moom nag xam bi mu xamoon loolu moo tax mu dundee loolu moom loolu yemul rekk ci wax ko waaye daf ko dundal ay waxam ak ay jëfam ak ci léppam léegi rek laa doon wax ak Serigne Abdul Wahab Baro bi may egsi léegi ci jotaay bi daf ma ne moom ci boppam Serigne Abdul Wahab ne na Serigne Cheikh mi ngi lay jaale waajur bi nga xam ne yow yàlla dogal na yaa ne ci kanamu njaboot gi waaye yéen ak njaboot gi day joxe ngeen tey leçon bu mag joxe ngeen leçon boo xam ne tey seytaane dootul bég ci gox bii seytaane moom dootul bëgg ci gox bi moom daw na sori fii yépp ndax ñi góor gi am a ngi ni toog ñoo ngi ni toog suñu boroom may leen nag may leen mag dëgg bu liggéeyee la muy bàyyi ci ginnaawam seytaane du ci am yoon moo tax sëñ ñu ngi lay jox bu baax sa wàccuwaay damay dajeek moom ci xew-xew yi ma sëriñ Abdul Wahab Sha'raani Baro di yónni waaye boo dajeek moom yar gi mu lay wan day tax sax doo xamati noo war a def parce que doomu soxna lool rek lañu soxla ci moom ni ngeen puusantee ndab li nag wane na ne ni ngeen nar a àndee nar naa rafet ni ngeen puusantee ndab li wane na ne ni ngeen war a àndee ni ngeen nar a àndee nar naa rafet yal na yàlla dëgëral leen yàlla bu seytaane am yoon ci li nga xam ne moom ngeen misir fii te bëgg koo def sëriñ Saliou Touré nag sëñ Abdul Wahab dafa wax ne jàpp na ne Cees ñàkkul mais àdduna bi ñoo ñàkk maanaam sëriñ Saliou ture ku jàpp ne Cees la yem yow xamuloo ko ku jappani itam yow rek la defal teranga wala yow rek ya ko bëgg wala yow rek ya ko wo yow xamuloko parce que seni salou Touré mom cheikhun alim la won cheikhun taqi la won cheikhun murabbi la won cheikhun shafi la won yi yeb daf ko bolé won te néwna borom xam-xam mën am loolu yàlla defal ko ko motax ba mu démé waccé Thiès yépp ko yëg wante demul parce que ku fi bàyyi ñu melni ñu def fi lu melni li ñu fi def tay wane ngeen ne demul sëñ abdoul Wahab néna ma mom mo téye loxom mu ànd ak Serigne Aliou Fall mu yebal ko ci Serigne salihou Mbacke mu bax ma néna na loolu mu ko defal reyna ci mom rëy bo xamné amul benn waxtu ci biir weeru koor bi fukki fan yu mujj yi sëriñ Saliou daf ko cee daan jàppal bis muy ñëw ci këram di feddali kóllëre boobu te loolu yéen xam ngeen ci dara kon yal na yàlla mottali yépp kilifa yi toogaay bi yàgg na waaye nag xam nga booy wax loo xam ne da nga koo yëg nuroowul ak wax looy xelaat man lu ma yëg ci sama xol rek laay wax yal na ko yàlla may sëriñ Touba radiyallahu teeru ko yal na ko yàlla deseel ginnaawam te bu kenn gis loo xam ne. dengan acam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jerejef